mbokk yi ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ni moo tagg ay jaamam yi nga xam ni dañ koy tudd fu ñu toll ak di ko fàttaliku yàlla wax ni am na sama jaam yoo xam ni dañuy tudd yàlla moo xam ba ñuy dox ñu ngay tudd yàlla bu ñu toogee ñu ngay tudd yàlla bu ñu tëddee sax di dallu ñu ngay tudd yàlla waaye bu ñu demee ba mënatoo tudd yàlla sax ñu ngay xalaat ci kéemtaan yi nga xam ni moo nekk ci bind gi ma bind asamaan ak suuf nee na dañuy mujj naan yow yàlla day asamaan ak suuf ak li ci nekk ci ay kéemtaan bindoo ko ci ay caaxaan ay caaxaan taxul nga bind ko yow yàlla tudd nañ sa sell la kon yàlla musal nu ci mbugalum safara ñoo ngi jullee ko sëlmal ci ki nga xam ni ci moom la yàlla tëje yonantu gi ma doon yónni waate moom yonent bi alayhi salatu wasalaam nga xam ni moom nee ki nga xam ne day tudd yàlla ak ki nga xam ne du tudd yàlla nee na bu ma leen mu ngi mel ni rek kuy dund ak ku faatu kuy dund ak ku faatu la nek seen diggante ci ak wuute nee mo nek nekk diggante kiy tudd ak ki nga ni moom aw làmmiñam bariwul lu muy tudd yàlla mbokki jullit ñoo ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ginnaaw ni tey sunu xutba ak tey gii nga xam ni mooy sunu juróom ñaareelu xutba wala juróom ñetteelu xutba ci yi nga xam ni moom lañ jagleeloon mbooleem loo xam ne daa laale ak laa ilaha illa allah ñoo ngi war a waxtaanee genn tudd yàlla goo xam ni bokk na ci tudd yàlla yi gën a rafet ci gën a mag baat boo xam ni baat bu gàtt la waaye la mu làmbool ci ay maanaa nit mënu koo takk nit mënu laa wax njariñ la na mu toll déedéet توحيد مي ويتال يالا سبحانه وتعالى اك ماغال كو اك ريسبكتي كو موم بروم بي سبحانه وتعالى دا لامبو بات بو وكير لوتي يالا موي بايي سما بوك يالا واي ديمبي ديكو يالا سبحانه وتعالى لي تي بات بوبو لامبو والي نيت مون لا واخ نامو تون موم كاي بات بي دال گيت لا گو خامني دا نيو تانك ليغا مانا تانك يوب بايي فا گيت گه waye lamu lambol nit mënu la ko netal lepp ba jeex mbokk jullit yi benn baat la boo xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam baat bi mu ngi sax ci suufu arash bu doon garab la reen yee ngi ci suufu arash foofu la sax waaye nee na baat bi ci boppam garab la goo xam ni ci garab yi àjjana la bokk moom baat bi kon baat bi ëpp naa sàgg ne baat boobu baat bu gàtt la te yaakaar naa ne ñun ñépp nag fekkoon tey fekkoon nañu xam ko muy laa hawla wala quwwata illa billah mbokk jullit yi baat bii bokk na ci tudd yàlla yi gën a gaaw a mayee tuyaaba te gën a rëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénk na ko lu mu gàtt gàtt juróomi nit ci saxaaba yi waaye dénkaan loo xam ne saxaaba bu nekk ba mu ko koy wax fa mu nekkoon bokkut ak fa keneen ka nekkoon maanaam ginnaaw yonent asalaam génnee àdduna lu mu gàtt gàtt juróomi saxaaba ku nekk nee na yonent bi ànd nañ place sàngam mu dénk ma baat bii nii bu ma ko mos a bàyyi kon baat booba kon ëpp naa sàgg abu musa al ashari nga xam ne bokk na ca ña gënoon a euh, mage ca saxaaba ya waaye bokk ca ña ca gën a fés muy abu musa al ashari yi nee na dañoo mës a xeex muy xeexub xaybar bi ñu jógee ahzab dem xaybar nee na bi ñu fa jógee di ñibbi nee na ñu dem bay jub aw xur xam ngeen ni ay xur yenn saa yi ah, xur am na yoo xam ni yàgg nañ di fa làqatu ci ay rabaki ay jinnee ki yooyu nee na bi ñu jubee xur wi xur wi xaw a raglu nee na gaa yi di kàbbar allahu akbar laa ilaha illa allah di tudd yàlla ndax xur wi nga xam ni moom lañ jub xur mooy zaari kàmb yoo xam ni yenn saa yi boo ko jubee boo fa duggee daanaka ku toll fële mën na laa bañ a gis da nga ciy dugg ba génnaat yéegaat ci kaw ñu door laa gis nee nañu yukk nag mu xaw a raglu lool nag nee na nag ñu daal di ñuy ñuy ak di wax laa ilaha illallah ci kaw nee na yonentu asalaam dal di nii waaye yéen lu ngeen di yóoxu lu ngeen di yóoxu allahu akbar laa ilaha illallah yi ngeen di wax wax leen ko ci suuf ndax yéen ki ngeen di waxal nekkul ku nekkul ku fi nekkul tamit ki ngeen di waxal ku jige la ku ku kuy la muy kon jarul te ki ngeen di waxal ngi ak kon wax leen nee na fekk booba jamono ji yonent salaam di wax loolu man maa ngi topp ci ginnaaw li mu war moo xam gëléem la moo xam aw fas la nee na daal waaye maa ngi topp ci ginnaaw li mu war bu doon aw fas la daanaka yaa ngay jàpp ca genn ba kon jigéen ak on kon Abu Moussa jigéen ak yonent salaam nee na man maa ngi wax naan laa hawla wala quwwata illa billah laa hawla wala quwwata illa billah xam nga gars yi ñëw naan laa ilaha illallah allahu akbar nee na man baat bii laa jàpp rek ko wax ci suuf yonent bi dégg ko nee na yonentu asalaam dal di gestu ni ma yow abdullah ibnu Qais noonu lañ ko doon oowee moom mooy aw turam dëgg-dëgg nee na ma ni ko labbayka ya rasulallah nee na mu ni ma ndax doo ñëw ma wax la baat boo xam ni ab rënk la ci rënki àjjana yi nee ma ka ni aha kay nag la sama yaay ak sama baay ñoom loolu la dañ ko daan wax yonentu asalaam yaa ma gënal sama yaay ak sama baay te looloo war am moo la war a gënal sax sa bopp nee na ma baat boobu day mooy laa hawla wala quwwata illa billah bii ngay wax ab rënk la ci rënki àjjana kon mbokk yi kon baat baa ngoog xaasim xaasim ibnu xurmala moom it nee na dama am sa romb yonantu bi alayhi salaatu wasalaam di dem di doxi samay soxla yonantu wasalaam dal di may woo nee na ma ñëw mu ni ma ndax du mën a wax ab rënk ci rënki àjjana yi nee na ma ne ko ah kay nee na mu ni ma mooy baatub laa hawla wala quwwata illa billah mu jox ko ko waa di dem beneen bii mu ngi nii moom it muy qays ibnu saad ibnu obada saad ibnu obada bi nekkoon madina doomam nee na nee na sama papa daf maa joxoon yonantu bi alayhi salatu wasalaam pour ma nekk kër yonantu bi alayhi salatu wasalaam di ko lëggéeyal nee na am benn bis yonantu wasalaam romb ma ma julli ba sëlmal fi ma toog nee na yonantu wasalaam dal di may fàdd ndànk ci sama tànk bi xam nga da daan kafoo da daan kafa xale yi loolu bokk na ci ni mu daan dundee xale di kaf ak moom yenn saa yi mel ni ku ko dóor yenn saa yi mel ni ku ko fàdd tuuti yenn saa yi mel ni ku ko poñe di kaf ak moom nee na mu fekk ma ma julli ba sëlbër rek bu mel ni ku ma kejj ndànk ci tànk bi dal di ma ndax doo ñëw ma wax la benn buntu ci bunt bunti na yi nee na ma kat aha kay nee na mu ni ma mooy laa hawla wala quwwata illa billah kon beneen beneen xadis a ngoo kon mbokk jullit ci laa wala quwwata illa billah nag li muy tekki mooy nit mënta bàyyi mooy yàlla lu dul bu fekkee yàllaa ko dimbali waaye nit mënta topp yàlla lu dul bu dee yàllaa ko dimbali ibnu rajab ba tey définir na ko ci wax ju mu wax ni nit mënta jóge ci situation dellu ci situation lu dul bu fekkente ni yàllaa ko dimbali loolu mooy la hawla wala quwwata illa billah maanaam man mii mënumaa jóge ci jaamu yàlla gii dem ci geneen jaamu yàlla lu dul bu fekkee yàlla ma dimbali mënumaa jóge ci activité bi dem ci benen du lu fekke yàlla ma dimbali tax bo ne la hawla moy pexe amul xel amul compétence amul ha wala quwwata kartan amul lo gis ci aduna ñaar yi ñaar yoyoy koy taxawal am xel ak doole ñaar yi nak nag ñoo am illa billahi ludul bu dee yàlla moma ci jox dara kon baat bu reuy ma ko julit baatu la hawla wala quwwata illa billah baatab dimbilikoo yàlla la moo tax nga fekk sariya islaam ñaar yi fi nit ki di woo dëgg dëgg dëgg ndimbalul yàlla da ngay seetu ni laa hawla wala quwwata illa billah day ñëw mooy ñaan yi ñuy faral di joxe dee xool bu baax jamono ji nga xamee ni yaa ngi bëgg dem julli ji te xam nga ne julli seytaane yenn saa yi day laxasu nit ki seytaane yenn saa yi lay laxasu wala mu yeew la ni la doo fi jullee kon foofu kon da nga faa soxla dimbalul yàlla pour yàlla dimbali la ci seytaane nga mën dem julli ji motax boy déglu ki nodd di nodd boy nodd yalla ta nee neena lum wax waxal lum wax waxal bu hayya ala salah nga ni laa hawla wala quwwata illa billah xoolal hayya ala salah limi tek kay len ci julli hayya ala al falah kay len ci mbégte wala kay len ci texe gi comme que nee na kaay leen te seytaane dina nekk sa digganteeg nga ñëw nga ne laa hawla wala quwwata illa billah pour yàlla dimbil la seytaane ba nga mën a dem dal di wuy ci mbokki booy génn sa kër da soxla ndimbalul yàlla da ngay soxla yàlla jàppale la ba mën a dem ak jàmm ñëwaat dugg sa kër ak jàmm moo tax foofu ñu andi fa baatub laa hawla wala quwwata illa lu yonent salaam wax yonent bi nee na ida xaraja rajulu min baytihi bu nit ki di génn këram fa qaala mu wax ni bismillah ah ci turu yàlla laay génne tawakkaltu wakiirlu naa ala allahi ci yàlla laa xawla pexe amul wala quwata kartan amul illa billahi lu dul ku ko yàlla jox gis nga foofu baat ba ñëwati na fi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na boo génnee day am baat bu nekk ci asamaan si nee na yow day teg nan la ci yoon te yow day fexe fexe nga ba ba yàlla doy la nee na mbooleem seytaane yi dañuy àndatu yoon wi muy jaar nee na beneen seytaane day taxaw fële naan kii moos lu ngeen ko mënal kii nga xam ni moos mbooleem foo xool dañ ko faa aar daa war a dem ñëwaat nee loolu seytaane yi di wax yonent bi ko wax alayhi salaatu wasalaam moo tax ñaan kii ëpp naa bàyyi bay génn sa kër di dem fooy dem yaa ngi génn sa kër wax ko bismillah tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billah loolu guddul nga wax ko dal door a génn sa kër mbokk yi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na comme ni ko nee na man ta'arrada min al képp koo xam ne da ngaa jékki-jékki yeewu ci guddi gi xam nga yenn saa yi ngay nelaw ba si yàgg nga jékki-jékki yeewu yeewu goo xam ne kenn yeewul yow daal mën naa am danga kii ba ci yàgg rek dal di jékki-jékki yeewu yenn saa yi mu dal nit nee na boo bu la dalee nga daal di wax wax ji mooy lan. la ilaha illallah amul benn bur bu dul yàlla wahdahu moom képp la sharika lahu kenn du ko bokkaale lahul mulk moom moom nguur wa lahul hamdu moom moom ak cant wa huwa ala kulli shay'in qadir lépp lu mën di doon moom am na ci kartan alhamdulillah maa ngi sant yàlla wa subhanallah maa ngi koy tudd sellam nga wa la ilaha illallah amul benn bur bu dul moom ca dëgg wallahu akbar moom yàlla màgg na wala hawla gis nga baat ba ñëwaat na foofu wala hawla pexe amul wala quwwata kattan amul illa billahi kudul mom bat baat baa neena mom nee na moom yonente bi asalaam wax de neena na summa top mu wax ni allahumma yaw yàlla ighfir li jegal ma aw daa neena wala mu ñaan lu mu bëgg ñaan neena ak lu mu man di ñaan ustujiba lahu yàlla dina ko wuyu fa in tawaddaa bu joge nag jàpp nak ah wasal wasallaa na li julli qubilat salatuhu yàlla dina ngug julle daa cukup ci guddi gi rek wax lii nee na loo ci teg ci ñaan yàlla dalay nangu nee na la ci gën neexati nag mooy nga jóg nag jàpp nag dal di julli nag yàlla nangu sa julli xalis ma buxaar solo di wala quwwata illa billah sabab la ci yàlla subhanahu wa taala jéggal la say bakkaar même bu baree abdullah ibn Umar. wala abdullah ibn amr ibn al as nettali na ni yonantu bi alayhi salatu wasalaam moo wax ni ما على الارض احد امول كن كنك تي كوسوف يقول دي وخني لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله غيس نغا بعد بي نيوتي دو نينا بو وخني لولو الا كفرت عنه خطاياه لدول داني كي جيغل مبولم اي جاوتي فاب وان كانت مثل زبد البحر ميم بو تولوي ني بوريتوم جيج دنج كوكاي جيغل lu bàkkaar yi bari bari bari bu toloon ni puuritum géej nee na yàlla jégal ko ko mbokk jullit bi baat bi guddul bariwul jafewul laa la wala quwwata illa billah dégg wax te damay faral di wax ni yàlla xam na ni ajjuma ba ajjuma bi si siwaat boo doon wax laa la wala quwwata illa billah nga xam ne yow da nga koy wérde yow maanaam yow bés ba daf lim nag kenn na wut loo wula ci ab lim waxal rek boyal mu dem لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله غادي يوخ دانك خولال داما ني واخوما اديو بي ني وايي 24 هور هور بي كوماسي بلا ديل سي وات ديغا سيتلو سي سا خول بي ني خول بي ما يورون با ما كاي كوماسي بوكو دا خول بي ما يورني ديغا سيتلو اك فيخ سي سا على بذكر الله تطمئن القلوب لا يالله يالله نينا ياكار نين ني موس اب خول من نا te da nga dalal du tudd yàlla tudd yàllaa mën a dalal xol yi mbokk jullit yi kon nan lañ ko fexe te li gën a yéeme mooy liggéey yu bari yu ñuy liggéey mën naa ànd ak tudd yàlla nan lañ koy tudd waaye seytaane ci boppam moo dox suñu diggante ak tudd yàlla seytaane ñëw toog ci sunu làmmeñ yi seytaane ñëw toog ci suñu xel yi ak sunu xol yi waaye mbokk jullit yi yonentu bi aslaam waxoon ko nee na ku bari looy tudd loo gën a bari looy tudd moom ngay deewee boo ko deewee moom ngay dëkkee man aasha ala cheyin maata alayhi wa man maata ala cheyin boita alayhi kon yëf yaa ngoog nan leen ko jël laa hawla wala quwata illa billah gis nga ki nga xamne sa bop da tëju wala mu am ñu lay fexel wala nga dem ko xamne da nga tiit wala nga am lo xamne yang koy daw wala dal mo xam ay bor mo xam ak tiitaange wala ay tiis la hawla wala quwwata illa billah am nga mbokk mu fi ay bar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 اللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرا اللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرا اللهم اجعلنا ممن يذكرونك كثيرا وتقبلها منا ولا ولا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد